koo gis. sëñ Saliou ma xam ku jaxasoo moom ñaari weer koo jaxasoo rek dangay amul tool bi waaye moom du la saf kenn du dul refusé ma la ko. waaw